yàlla musal la ci gumba ana looy jëfandikoo nee nañu boo bëgg yàlla musal la ci gumba gannaaw boo jullee suba wax ñaan gi ñetti yoon te mooy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimi wa bihamdihi la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim noonu la toll nga sax ci gannaaw boo jullee suba rek wax ko yetti yoon yàlla daal lay musal ci ngumba ak ngaana ak siti ak paralysie ñaan googu nee na alxasaali andi na ko wax ne yaronte bi moo ko jàngaloon ku ñu wax xabisa ñaan googu nag mat fonk lool ndax li wax paralysie daa bari léegi ngumba it bari lool Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Awf Az-Zubair ibn al-Hawwam Mahad ibn Jabal Zayd ibn Thabit Ubay ibn Ka'b Tamim ad-Dari al-Masih an-Nabi li itam day lu yomb yomb la te kenn ku ne war naa fexe ba def ko ndax tur yi mu tudd la wax ne ku ko bind ci ndag lu set wecc raxase ko ndox mu laab di koy sëlëme sa kanam ak say bët doo gumba mukk mukk loolu nag kon mat naa def ndax niñ ko waxee woon léegi sunu jamono ji daa mel ne tawati bët ba àgg ci gumba dafa bari Lolol, lol li tam de taxu ko jafe te itam baxna lol mune bo ne xol dee xool al ahkaamu faa li ne yonante bi nee na koo boy ne booy lewiku da ngay njëkke sa baaraamu dëy sabaramu ca sa sangaleñ door caa teg nag baaraamu sànnikaay mujje biñu wax ndombur ndombur moy baaraam bi sus ci baaraamu sangaleeñ ku lewi ko te tegalé ko nonu do wànnin mukk-mukk loolu nak kon momit it lu di la lu mat di def la batay mi ngi tollu rek ci nu ñuy faje ay bëtt ak nuy tax ba di leer mu ne net leen nañ ci wali wu siiw siiw ca réew inde mu ne boo indee sa ñaari baaraam yi day bañu jegee nga jàng fa kashaf naa xanka aka fa basaruka al yawma hadidun juróom yaari yoon te yoon wu ne nga julli ci yonante bi bala ngaa tàmbali weneen su juróom yaar yoon yi matee nga tefli ko ci wey say baaraami doy xam nga andi woon nga ñaari baaraami doy ba ñu jegee kon seeni we itam jegee na léegi nag boo jàngee li juróom ñaar yoon da nga koy tefli ci wey ñaari baaraami doy yi ba noppi nag dal jël sawe yooyu raay ko ci sa ñaari bët wali yow nee na ku def loolu yàlla may la bëj ju leer te lu ca nekkoon ci wér bi yàlla dindi ko am kenn ci sahaba yi ku jàmbatu yonent bi ay bëtam mu ne ko demal xool alquran ndax man ci saa bopp man yonent bi dama jàmbatoon yàlla sa borom sama ñaari bët ñi mu ne ma xoolal ab kamil mel ni loolaa koy faj nee nañu bëgg yàlla musal la ci ngumba da nga fexe ba suba ngoon gu ne nga jàng allahu samawati wal ba ci wallaahu bi kulli shay'in alim juróom yoon nag nga koy jàng suba ngoon bu suba juróom yoon bu dee juróom yoon ku ko def sax danga gis ni sab gis day yokku